di régler compte yi dinañ fi wulli maamu nit ba mu ba ndigli na kabaj dinañ fi taali kër ñi taal kër yi dinañ taal seen kër yi dinañ taal seen kër nday yi taal seen kër baay yi ñu ngi ñu ngi ñëw de deux mille vingt quatre année règlement de lépp lu fi waaye def dencal mille vingt quatre moom du année dirigé kenn du ko dirigé deux mille vingt quatre dina mel ni tulleeg male dinañ ko régler li ngeen ñuy def yëpp jamono ji dañuy fayu bu ñu deewul dañuy fay par la force doole mbaam man xaw ma kan may dinaa fayu fayu moom dinaa ko def wallaay wallaay maa ngi imaginer sax li ma war a def incha allah duma ci sax wax pour jël sama avion na ca rek toog taxaw Ousmane di jiite jiiteem ma réglé man li may regle man tamit def li may def wan leen ni fii wala à la guerre comme à gat sa gat sa œil pour œil dent pour dent ba ngeen ko mënee def ngeen ko ñu mun ko dañ koy def ñun tamit voilà <laughs> affaire bi loolu la moo tax nañ def say kéemtalaay kàttan bakkan tayle Ousmane Sonko na falu incha allah ñuy régler sañuy compte ñun tamit ñi gënuñu ñu ndey ëpp ñu ñu ci réew mi dañoo falu di def la leen neex di jàpp ni di di tëj di def lu leen neex toog ci réew mi ne duñ fi jóge non <laughs> nekk Macky moom ñii di wër di naan Macky Sall troisième mandat ñoom Macky sax xalaatu ko Macky sa amul fit bi Macky Sall ci poppam amul fit bi loolu moo tax Idrissa Seck dem yoonam parce que Idrissa Seck da doon négocier gis ngeen daf ko anticiper parce que daf bii passé bu ñu ko laajee def ne nañ bàyyi ba ki nga xam ni moo war a wax wax bu waxee ba pare après moom dina xam ni muy def mais Macky Sall même jabaram waxu ko day dem wala du dem parce que Macky Sall du def du dem xanaa jinne cuq ko mais Macky Sall du dem parewul dem décidé wul dem benn waay ji nekk APR dafa ma wax na ma na ma booy Macky Sall instant yi daf ñu dugal ci guuta ma ne ko ah mu ne ma woy gis nga Macky Sall fii ak septembre dina am benn remaniement buy am fi ñu bëri dinañ dem seen yoon parti bi dafa tas ma ne ko ah ma ne ñëpp dañoo toog di xaar mais ñëpp ngi wax seen biir naan ñi ngi xaar ba Macky Sall ne wuu rek wala waa rek ñu dem seen yoon. ma ne ma mais moo la nan nga mën a ànd ak nit ngeen di dem yow xamoo fu waa ji di dem Macky Sall waxul kenn fu muy dem Macky Sall waxul kenn est-ce que dina dem wala du dem Macky Sall la ngi nii ba pare naan topp leen mu ñu koy topp noonu. ma ne ko ah loolu dama c'est dangereux parce que nit boo xam yaa topp leen ma nga koy topp noonu yow nga naan ko dugal kër gi dugal kër gi te waxuloo dara mu ne mu ne ma ñun dañoo am ñun dafa am ñu yaakaar ci ñun am ñu bootu ci ñun am ñu ñu yaakaar mais ñun ñu topp ci waa ji waa ji moom kenn xamul lu mu bëgg a def ñu topp ko noonu di dem ngay topp nit boo xam ne xamoo fu mu dugg fu mu fan la fan la nar a ma ne ko loolu moom danger ma ne moo tax fu nekk nii parti bi yëpp a ngi taxaw ma ne ko mais waxu ko sax jabaram mu ne ma même jabaram waxu ko kenn xamul fu muy dem ñun dañuy topp waa ji ñun ñu am ay doom am njaboot am ñu yaakaar ci ñun am ñu bootu ci ñun ñu topp benn ponkalum jëmm wi batar batar yi kenn xamul fu mu dem ñun ñoo fi nekk rek naan ay non troisième candidature troisième may mu ne waa ji waxul kenn xamul lu ñu jëm ma ne ko <laughs> takk leen seen bagage yi de takk leen seen bagage te xam fu ngeen mais waa ji moom waa ji du dem de benn point la am mooy dafa bëgg a liquider Ousmane Sonko bàyyi gars yi demal seen bopp ku gañe gañe nga ñeneen ñi amul amul compte yu leen di rendre parce que Ousmane Sonko. ak peuple bi ñoo taxaw ne gàtt sa gàtt sa dina leen ñuus ba ngeen yàbbi li ngeen sàcc dina leen xoj ba ngeen wàccu li ngeen fi sàcc léegi nag moom benn problème la am Ousmane sonk du dem bu paree après moom mu bàyyi élection yi ngeen doxalee ko nañ ko doxalee mu ne man loolu laa gis moo la est-ce que xam nga ne man loolu laa gis non mais grand bi du wax a kenn du wax ak kenn ñun ñoo fi nekk di force sax ci télé yi naan woy troisième candidature mais xoolal mu ne ma ba ci Amadou mu ne ma même Amadou Ba nee na grand bi bu xef xippi ma dem bàyyi ko fi ma ne ko mu ne ma billaahi wallaahi wa taala Amadou Ba mii nee na bu bu xef bu Macky di xef xippi mu bàyyi ko fi ma ne ko foofu nekk foofoo neex yéen kay yéen ñëpp seey leen mais bu leen ñëw bu leen ñëw Pastef de Pastef moom ku fa dugg ñu rëkk sa ndigg <laughs> bu leen fa dugg de Pastef moom am li ngeen doon def noonu di daw di mel ni ay kañe di dugg ci kër jàmbur yi di jaxasoo ci biir njaboot gi Pastef moom bokk fa boo leen fay dugg ñu tas Pastef moom Pastef bés bu accepté yéen salte yii ngeen di surxal bu ñu surx foofu noonu nañ leen loxati wala ñu sànni fa bomb rek ñëpp deyandoo waaw kon ñoom Macky Sall képp ku taxaw ba jabaram sax waxu ko lu muy def décidé wul lenn la Macky Sall décidé Ousmane ko naa ko téye bu mu dem bu ma ko téye bu mu dem comme ça après ma bàyyi élection yi libre ku ne ku jël jël ka affaire man ma nekk sama jàmm quoi. après bu boobaa ñoom ñëpp ku nekk dem daaw da jàlloo dem euh, euh, euh, Amadou Ba dem xam nga ñoom ñëpp ku nekk dem di wuti dara buñ ko nangu Macky Sall mënu fee toog ne moom décidé wul pour dem demut ba pare Ousmane Sonko du dem kaay kaay nga toog nga toog. <laughs> <laughs> réew mi day tàkk lu ñuy bañ a dégg réew mi day tàkk ñun ñoo ko wax dañuy taal réew mi réew mi li ngeen ci amee lañ ci amee boo leen ko bëggee yàq ñu taal mi kenn du ko taal ñoo koy taal ñoo koy taal jëppét boo leen ko bëggee yàq ñu taal ko waaye <laughs> ñun ñëpp ñu yemandoo ci boo leen ko bëggee yàq ñu taal ko waaw loolu mooy charia boo leen ko bëggee yàq ñu taal ko voilà mi ngi noonu loolu daal lañ leen di wax un ko bëgg yàq ñu taal ko incha allah kon nag gars yi cocktail molotov yi mi ngi naa nice gis ngeen bu dëkk bi soxlaa amul fii laa far amul fee far waa Ngor wane nañ ko waa Wakam war wane nañ ko waa Yoff wane nañ ko radicalisation bu doy waar gis nga di xeex ak yi di xeex coy yi ba fajar ñoom laa seetaan ba fajar macha allah idris Seck moom outsider la Idriss Seck outsider la amuñu jotam gars yi encore une fois plus de concentration plus de détermination benn xeex moo fi am ñoom nee nañ Macky Sall du dem ñun ñu dëggal Macky Sall du dem waaw loolu du xeex loolu moom du xeex <laughs> Macky Sall du dem loolu du xeex loolu du xeex moo tax Idriss Seck bu mu demee. xam nga def na day xaar Macky Sall mujj ko xaar mu dem ne Macky Sall mu réunion bi passé gars ne nañ mu dem ne Macky Sall waaw mais xam nga on peut pas être plus loyaliste que le roi euh, sa gars yi ñi ngi may wax lu ne waaye it man ak yow ñu ba may jóg it di def conférence de presse bi yëgal naa la ko ne woon naa la dinaa def conférence de presse tey li ma ci waxit doytuwaar bi Macky Sall ne ko waaw loolu de moom doyut waar bu ñu jógee bu mu jógee màkk bi nii rek ñëw mu ne ko waaw loolu moom doyut waar du seetaan nga ko Macky ne ko waaw seetaan naa ko kay mu ne dama cee wax lu ëpp Macky ne ko ah gisuma ko de dama cee wax lu doy waar Macky ne ko doy de gisuma ko waa waxuma ci lu doy waar gis naa seen nit nag jóg commencé di ma yàq lu mel ni xeme waaye it ma xam ni rek yàlla yenent bi la bind sallallahu alayhi wa sallam mooy ami noon kon nag bu ma amee noon it duma ci bañ dara te yàlla tamit bu muy wàcce aadama ak awa ci kaw kon maanaam euh, mënul ñàkk waaye man duma wax ak boojo boojo gi yow laay waxal yow njiitu réew mi ak cër gi ma la jox man boo décidé rek maa ngi sa ginnaaw mais boo décidé wut danga may wax rek ma teel a xam pour mun a jël samay devant Macky Sall na ko décidé ma dara j'ai rien décidé décidé ma dem décidé toog ni ma ko waxee laa la koy wax bés bu jotee dinaa wax li ma décidé mais pour l'instant décidé wu ma dara waaye boo buggee yow munoo xaar loolu mun ngaa dem ci jàmm ak salaam nga dem mais ñu seq jàmm waaw maanaam soow bi comme forox na ah mburu mi mën nañ koo seppi sànni parce que mburu mi tamit daa yàqu te soow mi mooy idi forox na mburu mi <laughs> moom mooy Macky Sall mooy mburu mu yàgg bu nga xam day dem ba euh, day day day day ñuul noonu mburu mi day non bu ñuy dem yoonu kaw Kaolack ci àll bi dañuy taxaw rek di di chargé mburu mi ci ci njaga njaay bi dañ koy chargé chargé ba tegal la ay quelques miss ci sa kaw bopp bi ak sa ak sa ci sa tànk ne la teel ma grand teel ma euh, <laughs> kii fagadaga geeg ñoom xam nañ mburu yi boo demee ci sama mbokk séeréer yi ñoom mburu yëpp lañ xam xam nañ fagadaga xam nañ mburu mu fanaan xam nañ voilà ñoom ñoom moom dañ ciy chargé chargé ba duyal la ko yow sa kaw ndeysaan ñun ñi bu ñuy dem yoonu Kaolack ba laa ilaha illallah duñ jënd dara mburu rek lañuy jënd mburu mburu am jox ma foofu tan trente mille ki naan quarante am jox ma deux cent <laughs> xam naa ni ñoom euh, sama mbokk séeréer yi moom ndeysaan korite gi <laughs> mburu gi rek lay mburu mburu mburug soos mburug soos gi moom <laughs> dina mel ni tulleeg male mburug soos voilà ñu ngi leen di ziar tàppalappa waaw tout ça ñoom xam nañ ko non ñoom xam nañ ko ñun yàgg nañ man yàgg naa téew yàgg naa dugg ci njaga njaay yi sama mbokk séeréer yi di ma di ma duy mburu yi <laughs> grand teel ma <laughs> duy la ko ba mburu mi toll nii ba ëpp la ba doo gis chauffeur bi fu nii lay def doo xam doo xam doo ngay yegg sax sa sa sa mais nag balaa nga yegg sa dëkk ñoom ñëpp ñu wàcc ci yoonu Saalum ba mooy mbokku aji saar yi mbokk aji saar yi ñu ngi leen di ziar waaw bu weesoo comme ni ma ko waxee Macky na ko nag ci seen waxtaan bi passé Macky na ko man bés bu ma ko décidé dinaa ko wax mu ne ko mais idi na ko waa mais boo koy wax fekk mu yeex tamit <laughs> te ma damaa bëgg dugg ci àll bi def li nga defoon bu nit yi di werante Ablaye Wade troisième candidat balaa ma fee toog di tardé. gis tey sanq nii laa ko xool vite fait français bi bu wax français bi rek déglu ma sax wolof bi parce bon jotoon naa. neex tam nga dem ci jàmm. jour buy décidé mooy jour bu muy jëlee Ousmane Sonko xañ ko dem ba pare ci lay décidé du wax mukk te Ousmane Sonko am possibilité dem ma doo dégg mukk Macky na. terminé wu loolu duñ ko fi duñ fi toog di ko fi xaar wala di ko seetaan donc Idrissa Seck day xam ni bu toogee naan day xaar Macky Sall mun na fi guddee balaa mu fee jóg naa day dugg ci àll ba <laughs> wut benn golo bu mu nax wala benn chacal bu bu bu bu ko warax. fekk gars dëkk dëkk bi yëpp dem nañ seen yoon loolu moo tax Idriss Seck wax ak Macky Sall mais Idriss Seck porté wul la candidature de Macky Sall pour ñu leen ko di gëmloo léegi ngeen gis ñenn ñi ñu ne Idriss Seck Macky ko yónnee ah, déedéet lii lañ waxtaan waxtaan nañ Idriss Seck ne Macky Sall na ko wax parce que Macky waxu ko kenn Idriss Seck moo wax demandé Macky Sall pour mu ko ba xam day dem wallu dem Macky ne ko bu jotee dinaa ko wax. Idrissa Seck na ko mais man mënu ma toog dala fi xaar ba bu jotee. ñi seen yaay jur sànni leen ci mbalit bi parce que rek la Idrissa Seck mën a convaincre képp ko sa yaay jur sànni ci mbalit nga doon orphelin hmm? jàngoo amoo dara ci sa bopp bi nekk imbécile rek moo mun a ànd Idrissa Seck donc ñooñu rek la mën a dem naxe ji te balaa moo jóg te ñooñu ay imbécile kenn du ko kenn du ko teel imbécile tamit yomb ta nax de imbécile boo ko naxee rek dalay topp mais yomb ta nax boobaa day fekk mu trop tard loolu moo tax Idriss Seck ne moom bàyyi mu dem Macky Sall ko waa demal donc Idriss Seck moom boppam lay demal waaye nag ñaar bi ko fa am <laughs> maa la waatal ci yàlla élection bu ñu demee Idriss Seck boo leen déggee deux voix moom la ak jabar ji nga xam ne da koo bëgg jabar ji nen daa nopp jabar ji waaw mun na am ñaari booy booy booy booy Ablaye Seck Idriss Seck rek la bañ ab lay sekk moom nawloowul Idrissa Seck Ablaye sekk moom il est dans les nuages <laughs> du sax voté mus ngeen yéen xanaa xamoo ne gars yi ñoom wuñ seen papa yi barke alxuraan nawloowuñ seen papa yi de politique wuñ seen papa yi mus ngeen dugg fenn fu ñuy voté ngeen fekk fa Ablaye sekk yor carte Ablaye Seck bëgguñu sax doon Sénégal xanaa xamoo leen. ay passeport diplomatique lañ yor ay américain lañu xam nga yor yor ay Maybach di dawal oto yi ngand xale yi xale boo boo ñu boo nuroog sénégalais sax duñ la doxaan il faut nga métissé wala nga xaw doon tubaab wala yooyu ñoom yooyu ñoom duñ doxaan ay waaye waaye yow non gel yooyu duñ ñun rek ñu ñooy doxaan yooyu waaye yow yow yow doo ma jëndal mees waaye yow sax fromage oh, oh, oh, la voiture non doxaan booy yooyu ay américain lañ ay australien lañ booy yooyu newuñu sax monde bi ñooñu doo leen mës a gis ci ay école yi rang naan dañuy voté mës ngeen gis Ablaye Seck ñu bu ngeen voté ba léegi mës ngeen gis Ablaye Seck rang ci ab bureau naan day voté <laughs> nawloowul baayam nawloowul baay bu xoolee baay ji danaan kii village waa la kaw kaw la baay ji day sàcc milliard jox ko moom muy faral di <laughs> topp topp wesh wesh yi jeex na. même Amadou Sall bu ñuy wax nii Amadou Sall américain la mais Amadou ban mille neuf cent la am pour voter mos ngeen gis Amadou Sall cib école muy rang mais en 2012 da ngeen mos a gis ab Amadou Sall daan fan ban kan ci école Amadou Sall yor carte naan day voter en 2019 kan moo fi gis Amadou Sall muy rang naan day voter pourtant yooyu mun mën na voter nawloo wuñ seen bàyyi ay américain lañ ay australien lañ ay passeport diplomatique lañ yor yu taxaw booy yor ay kees ñu jox la alal bu bari ñu kañ di dawal ay bulit xale yi nes ne si métis yeeg yooyu duñ doxaan ko lañ di ñaan ay chaîne ay chaîne ak ay may moom mu jënd cheveux ay may ma ma def ay ongul yooyu ñoo ci ñun la ñuy daanu may ma ma chouchou baby papa may ma ma ma yokk samay wee may ma ma def samay hanche may ma ma def samay cheveux yooyu ñun ñoo koy am ñun <laughs> xéwal kooku ci ñun lay daanoo eh, xéwal la nag mais ci ñun rek lay daanoo ñoom doo ñoom Sénégal yi soxluñu seen seen cheveux yaa ngi fii di laal seen taat yi seen ongle yeeg yooyu duñ ko laaj ñoo am malgré que ñoo am nañ ko mais duñ duñ leen ko laaj parce que <laughs> ñu ñoo duñu laal duñu laal luy làkk wolof bu set du ñu gérer ku laal kuy kuy làkk wolof bu set mukk duñ ko jege métis tubaab yooyu la ñuy yoo xam ni xamuñu ñaan daal xamuñu ñaan xamuñu mottali ma xamuñu <laughs> mottali <laughs> mun ngaa doxaan tubaab cent ans du la wax may ma may ma jënd cheveux <laughs> loolu suñu culture la ñoom amuñu culture boobu mun ngaa wax mun ngaa doxaan tubaab deux cent ans du la may ma ma yokk samay ongul mais bu dee bu sénégalaise bi moom <laughs> xaar ko boo nee ko je mu ne la I love you moom suba mu ne la <laughs> sama ongle yi doo ko béy moom mottali ko <laughs> sama cheveux yi dafa manqué sama cheveux dafa daw ñu faqati ko ñu ñu agressé ma dindi cheveux bi sama cheveux manqué jëndu de ba may cheveux pose sourcil ak pose nopp ñoom laal yooyu moo tax ñoom nekkuñu ci monde wu ñu nekk ñoom nawloo wuñ seen papa yi nawloo wuñ seen papa yi wallahi la azim duñ jege seen papa yi booy ay américain lañ ay passeport diplomatique lañ yor di fërërëri di naaw di dem di wéy di wéy di wéy te ñun duñ danger <laughs> duñ danger duñ wax na laaj naa leen a gis Amadou taxaw ci bureau bureau naan day voté kan moo fi gis euh, muy wër <laughs> ci bureau di rang naan day voté bu doon ñoom la rek seen bàyyi duñ falu ndax duñ voté seen bàyyi donc doomi xaraam yi rek ñooy nawloo ñooñu topp ci ñooñu <laughs> man dinaa la topp man man naa topp Macky Sall te doomam topp ko man naa fi nekk di kurti kurti di votel Macky Sall te ci boppam am carte ni man votelu ko <laughs> man maay man man maay kumba amul ndey man man maay torox tortu moom doom toog foofu du ko votel man may tëri cër cër cërxi ci bureau yi di ranga di ko votel <laughs> bu faloo doom ji doom ji defaru man ma torox tortu ñu jàlla yërëm lañ donc daal gars yi restons concentrés focus sur l' essentiel mooy Macky Sall saa yu buggee laal Ousmane Sonko bu kenn tee kenn na dëkk bi tàkk jëppee tàng jër jër jër jër bay bax parce que affaire bi nekkatul Ousmane Sonko c' est la vie de tous les Sénégalais qui sont en danger sës ñi mel ni ñun ñii nga xam ni ñibbi ñëw jege suñu njaboot gi rek lañ bëgg mënuñu ko man ak samay maas mooy xam ni ñi nga xam ni dañ leen rey te Macky Sall ubbiwul enquête moo xam ni ñi nga xam ni dañu bugg liggéey mënuñu ko am dëkk bi yëpp ñaan la dëkk bi yëpp grand dimbale ma la dimbale ma te li ma ci am la Sankara Mbaye am lool la Rigros am ña bi dëkk bi yëpp ñaan la dëkk bi yëpp man damaa daw gis ngeen internet bi ñetti fan yi laaj leen lu tax ma daw ko dimbale ma dimbale ma mën a war ak daw dëkk bi dimbale ma moo laa dama am moo laa dimbaloo moo laa man de boo ma dimbaloo ginaar duñ ko ñooñ ñoom moo laa kii bi moo laa moo laa moo laa moo laa nu mu ko daw ne nu mu ko amee noonu loo ko Sankara Mbaye amee noonu dëkk bi yëpp ñaan dëkk bi yëpp yëpp ñaan yëpp a ñaan dëkk a tàll loxo lañ def moo tax ku nekk war ngaa xeex loolu moo tax ma daw internet ba taxaw nel may ñëw ñii man ñii dañ bëgg a jommal wala <laughs> dañ man du ma orphelin di <laughs> lañ <laughs> chômeur suñu caatu kër muur chômeur la liggéey daa liggéey daa liggéey ba ne ba ne bay bëgg a dee menuisier bois la menuisier bois lu ne daj nañ ko yóbbu nañ ko fa ba doon dëkk bi waay hmm, Gabon tawaat ñëw ka topp ci moom un chômeur la <laughs> sama juróom-ñaari frère yëpp ay chômeur lañ <laughs> xaw ma kuy dimbale waaye rek bu bu ma bayee ci samay weewu tànk rek man waruma dimbale kenn saa baay chômeur la saa baay ki ma jur chômeur la ndax retraité ma nga ca kër ga toog yow di seetaan télé di toog di seetaan di xaar dee yàlla yàlla guddal fanam saa baay chômeur la de saa yaay chômeur la man sama yaay tam chômeur la de ma nga ca kër ga toog di yow di jóg <laughs> di di di korkoral di feebar di naan ay paracétamol ak i doliprane ñu ko ay massa massa massa kon kon kay ku ma yorumul ba jéem non Mawla jàppale ma Mawla waa juróom-ñaari frère am yëpp chômeur lañ boo duggee këram xam ne ña fa nekk yëpp ay chômeur lañ baayam chômeur la yaayam chômeur la <laughs> bu fa yemee rek man bu ma yemoon ca sama kër rek waruma jàppale nit. problème bi du yéen kese ñëpp a ko yor dafa am ñun toog rek muñee seen muñee seen problème mais fii ñëpp a yor problème ñëpp a yor fii. du ñuy politiciens yoruñu fukki dërëm gars yi yow alal bi ñu ngi ci kaw may ñu leen possibilité sax pour ngeen ñaan leen doo leen leen sax gis boo leen bindee sali sax duñ la répondre duñ gis sax sa message duñ leen liir kon kay ñun war nañ xam ñan lañ war a xeexal ñun suñu biir ñuy ñun ñuy torox tott di ñaanante suñu biir di ñaanante waaye dimbala ma jox ma waaye dimbala ma ñun ñëpp yem ñi nekk ci kaw di ñu puubake saw ñoom ñi lañu war a yóotu nokk leen ci suuf mooy daane leen te soreetul 2024 ñu tàgg tàggaliku ak buumu nooteel 2024 ñu tàggaliku ak buumu nooteel jeex na billaahi lu mu wóor 2024 rek wax ji jeex 2024 rek wax ji ne fiñ donc daal gars yi stay focus affaire bi bu ñu déglu cette cette euh, l'oisiveté c'est la pire des vices nag benn problème lañ am ñun loolu sax du ay Pastef ak ñeneen déedéet Sénégalais bi moo am problème boobu Sénégalais bi xëyut gontut yattut internet nu mu metti metti dina ko lijjanti bu toogee day liir bu liiree day wax loolu moo tax sénégalais bi kenn mënul fexe ba xar bu ne mbee du ko bind parce que amul lu muy def amul lu muy def xëyut kontul moo tax internet bi ne tulleeg male <laughs> yow yow gis nga si sekk tey soccam bi socc bu mu indaale <laughs> keneen ki jóge fe waaw costume ba nag <laughs> kenn li ne di mu indi nag amuñu lu ñuy def xëyuñu kontuñu mais boo xëyut gont toog ci internet bi lijjanti sa 200 francs def ci internet wala 300 wala 500 boo ñaan ñu may la ko nga def ko ci amoo looy def mais sa waay